jaar ci suñu ay koppar loolee mooy somme bi nga xam ne ñaari société yi jëbal nañ leen ko nga xam ne moom lañu ñu war a jëfandikoo ngir doxal programme cent mille yi ministre bi di xam ne ne li ñu ci gën a bëgg mooy gën a ñoŋal ñaari société yi le ngir ñu mën a am ay jumtuwaay ngir mën a yegale programme bi le conseil présidentiel bi ñu defoon fële ci présidence de la république mu jox ndigal ni nañu gën a bàyyi gëdd jox gëdd nañ jox gëdd SN ak fond ak SICAP jàppale leen ci jox leen suuf gis ngeen ni wax fàttali nañ ko sànq depuis 1999 ñoom ñaar ni amul kenn ku ci jëpp pepp suuf bu jógee ci nguur gi li ñu war a si mu a la nga xam ni daf leen di jox doole gën leen jox gëdd mais ci gëdd boobu ak doole boobu ñu jëmale ko ci li nga xam ne day day jëmmal projet bi nga xam ne président de la République moo ko moo ko moo ko moo ko initier boppam. bokk ci ministre bi di ñaax ñaari société yi ñu def seen kéem kattan ngir mën a yeggale programme bi. ku nekk na joxe boppam ku nekk na xam ni liñ ko dënk président dafa dafa bàyyi ay ñu bëri dënkuñu dënkuñu ay liggéey bu liggéey nag bu ñu koy def ci équipe lañ koy defandoo ñëpp jàppandoo ba li nga xam ne président de la république lim ñu dénk buñ koy delloo ou bien di ko delloo askan bi gàcce bañ ci am. naka noonu kii di coordinateur projet bi di xamle ne délai bi dinañ ko respecté ndax nguuru Sénégal def na li ko war ngir jàppale ñaari société yi. mën nañ njort ne euh, kër yi nga xamee ne incha allah dinañ ko jot fii ak fin d'année dina doon ay kër yu gaaw te tamit dina doon ay kër yoo xamee ne dina am qualité biñ ci bëgg. SICAP SA ak SNHLM nag ñoom ñoo ci des ñaari société yi nga xam ne am nañ lu toll ci juróom fukk ak benn at ci expérience ci wàllum promotion immobilière ak dëkkuwaay social expérience boobe sax moo waral nguuru Sénégal tànn leen ci lëkkaloo bile.